di amaan mbégte rek ci àndaat ak yéen seen émission quatre-vingt-dix-neuvième numéro benn numéro tong dong manqué ko cent muy lu am solo nag ci biñ ko dooree ba nëgë ni di ko ànd ak yéen ngeen di ko safoo ci àddina wërngal këpp di ñuy jox ay soutien ci yëg gi ngeen yëg émission bi ak euh, am solo gi nga xam ne yéen a ngi ñuy wax ne am na ko solo ci yéen waaye laata ñuy dugg ci thème mu waxtaan wi dañuy baaxoo di nuyu la Sénégalais diaspora tàmbale ko États-Unis d'Amérique di nuyu waa Washington DC ak waa Washington Speed ak waa New York ak wa Los Angeles ak waa Californie ak waa Atlanta ak wa Columbus ak waa Austin Texas ak waa Dallas Texas ak waa Arizona waa Florida waa Las Vegas ak waa Colorado ak waa Cincinnati ak waa Philadelphie ak waa Alaska ak waa Hawaii ak waa Denver ak waa Louisville ak waa Detroit ak Minneapolis ak Michigan ak euh, Missouri ak Montana ak euh, Montana ak Nelwalda ak New Jersey ak Mexico ak waa Chicago ak waa euh, Harlem ak waa Caroline Nord ak waa Caroline Sud ak waa Dynasty ak waa Alabama ñu ngi nuyu it waa Amérique du Sud waa Venezuela ak waa Guyana ak waa Suriname ak waa Guyane française ak waa Colombie ak waa Équateur ak waa Pérou ak waa Brésil ak waa Chili ak waa Paraguay ak waa Argentina ak waa Uruguay di nuyu it suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Europe gépp di nuyu waa Angleterre di nuyu waa Suisse waa Hollande waa Italie waa France waa Espagne waa Portugal ak waa Irlande ak waa Germanie ak waa Danemark ak waa Norvège ak waa Sweden ak waa Pologne ak waa Belarus ak waa Ukraine ak waa Finlande ak waa Grèce waa Turquie ak waa Belgique ak waa Autriche di nuy waa Union soviétique di nuyu waa Canada di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy sunu monde de arabe waaye laata loolu ñuy nuyu ñi nga xam ne ñooy pays asiatique yi di nuy waa Corée du Nord Corée du Sud waa Japon ak waa Chine waaye di nuyu it ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu Moyen-Orient bi waaye ñu eh, njëkkee ko ci monde arabe di nuyu waa Arabie Saoudite ak di nuyu waa Palestine ak di nuyu waa Soudan. ak waa Syria ak waa Iran Irak ak Égypte ak Libya ak Afghanistan ak waa Pakistan India Yémen Algérie Maroc Tunisie Mauritanie Liban ak waa Israël kon loolu mooy première partie bi ñuy nuyoo sunu sénégalais yi nga xam ne ñooy sunu nattangoo yi nekk ci le sénégalais diaspora ci partout dans le monde xam naa su yàlla dogalee ñu ñëw ci tëj tey émission bi rek dañuy ñëw nuyu ñi nga xam ne ñooy waa Afrique de l'AOF tàmbalee ko fii ci sunum réew di Sénégal mbokk yi ñu ngi am mbégte dikkaat ci émission numéro 99e partie les Sénégalais diaspora vivre dans le monde entier mboolem foofu waaye man di nekk rek yaa ngi ci biir émission bi di bég lool ci soutien yi nga xam ne yéen a ngi koy jëme ci ñun ñenn ñi di ñu woo. direct ñenn ñi dañu vocal ñenn ñi dañu yónnee ay message seen messenger ak xeeti application yi nga xam ne mooy de communication la boo xam ne ci liñ ci bëgg a jàllale lépp dañ ko ci jaarale. numéro bii nag tey ba tey rek dañuy li ci numéro yi fi ci jaar am ci dañ koy fàttaliwaat ci wàllu li nga xam ne mooy investissement investir bi ñu nga xam ne war nañ ko def ci biir sunu réewum du Sénégal. waxoon nañ jafe-jafe yi ci am ak gàllankoor yi ak ya ci aju yépp mu mel ne li nga xam ne mooy vision da cee manqué ak wàllu étude étude bi mooy jàng ba xam euh, li nga xam ne mooy euh, wàllu investir yaa xam nag ci faculté ba nga ko def ak domaine bi nga xam ne moom nga spécialisé wu pour jàng loola waaye tamit wàllu vision vision mooy kii am xam-xam ba pare jóg ne bëreet génn sam réew dem di immigré yii nga jaare ko ci eh, côté bu légal wut say papier dem boo demee lijjanti say kayit am ko immigré ci terme ba nga koy defee walla méthode ba waaye la ngay gañee ca tukki ba it mooy vision ba nga xam ne moom nga visionné won ba tax nga ne bërit jóg dem ci sam réew loolu nag gis nañ ne li ëpp ci Sénégalais yi depuis année soixante yi ba nëgë loolu moom ñu ci baree bari dañ cee am jafe-jafe yaatu na lool nag ba tax na ñu néew a néew ñoom ñoo nekk ci euh, domaine boobu mu mel na nag ñu néew ñu tax na mënta feeñ ci Sénégalais yi seen investir ci biir réewum Sénégal kon mu mel ne sénération première deuxième troisième ñett sénération yooyu muy année soixante ak année quatre yi ak année deux mille yi muy ñetti génération yi nga xam ne ñoo fa nekk ba fi mu toll nii mel na ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn jumtukaay muy ko xas tàbbi ci réew mi rek mel na ne li nga doon waroon ne euh, am xalaat pour mën a gaaw liggéey ñëw dellu si ci sam réew mel na ne ñoom ñëpp ñoo ci bokk yam kon boo ko doon xool mën naa ne cinq pour cent képp nga ci mën a gis bi tukki bi dooree ba na gën a ci année soixante yi ñoo xam ne xaw nañoo mën a wane loo xam ne nekk nii bët mën na cee tegu loolu nag waxoon nañ leen li ko waral bi ci jëkk mooy ñàkk vision ne yow mi nga xam ne yaay tukki deuxièmement mooy ñi nga xam ne ñoom nga bàyyi ci réewum Sénégal gii te tey yaakaar naa foofu sax la ñuy incité pour ñëwaat fi pour bàyyi loo xel sunu réew mii di Sénégal nga xam ne amuñu lu dul moom te ko sañoon dutoo ko génn waaye li ñu fi tee mën a nekk nag nga xam ne mooy famille yi fi nekk ak voisin yi fi nekk ak yeneen yi fi xew nga xam ne dugal nañ ko ci suñu réalité nga xam ne loolu bari na ci loo xam ne si gàllankoor nañu yooyu tey ci lañ bëgg a joxe la waxtaan wi jëmee ko ci tey de ku am gis-gis xam ne bari nañu bëgg a toog ci réew mi waaye mënta nekk ndax fekk ñu fi réew mu baax fekk ñu fi état bu ñu mën a soutenir ñu mën a liggéey ñun ci suñ wàllu bopp it amuñu vision ngir mën a investir dara ndax dañuy bëgg am xaalis bu baree baree bari ba mu dajaloo nekk ay million ba jëm ci milliards nga door a investir liggéey na képp ku koy def ne damay nekk bu am fond bu am solo door ko def jàpp naa ne sag toog jàpp ndéegul genn wàll gi tamit bala ñuy toog dañuy renouveler seeni këyit ba mu nekk indéterminé wala muy am nationalité door ñëw toog loolu xam nga ne boo ko defee na la wóor ne dangay ngay lëndëmal sam xel rek waaye xam nga ne toog du yomb toog ku koy def bépp moyen bu lay tax a am retour ca réew ma dangay fexe ba moyen booba nga yàqu waaye tànk yaa ngi ñëw ne damay indi xaalis bu bari doon a investir li nga fi yor da ko fi lekk ba mu jeex takk takk takk takk ak nuñ ko mën a lekke lenn li danañ la ko triyaane lenn li danañ la ko danañ la danañ la jaay doole ne maa tey li ñu def nga dugal ko ci wàllu ay soxna ak ay oto ak di jéem tabax ay kër yooyu xajul ci dundug doomu aadama loolu lépp ay gàllankoor la yoo xam ne nii bokk na ci li nga xam ne moo ñu gàllankoor ndax fii famille yi dañoo jàppalewul kenn ndax it nag ñoo leen ko tàmbal ci ñàkk vision lay mën a duggaat ndax tabax kër cinq néeg am sa benn jabar dem indi ko toxal say waajur say frère say sœur ñoom ñépp ñëw nga jox leen kenn ku nekk loose fi barab ngay fay courant bi yow kese di fay ndox mi yow kese di joxe dépasse bi yow kese di ngénte yow kese kuy céetal nga céetalal ko yow kese nga xam ne la am la muy tuuti tuuti kenn du ci jéem a raam wala nga ci jéem a dox lépp yow lañ ko sëf bis boo gaaree ña jekk dañuy dem ña jékkul da ngeen di ànd nërmeelu kër gi nekk ci ay souffrir yu méttee métt loolu gis nañ ne mal organisation am na ci wàllu immigré yi kon kër yi nga xam ne ñu ngi koy tabax nga xam ne ci biir plan bi rek ci lañ lay commencé daane la fexeel ba def ko kër yu yaatu di sóoraale lu ñëwagul ëllëg dëgg la ëllëg du añ reer du añ du reer waaye lu jara a sóoraale la waaye nag boo joteewu nag jéem a fexe ba investir investir boo koy def da ngay fexe ba sarse yi nga yenu nga fexe ko wàññi am na ci sax nga bañ koo sarse waaye boo sarse ba diis gann nga xam ne mënatoo arrière danga dem ba dutoo mën a dox te boo mënatoo dox bu yàggee doo mën a taxaw te boo mënatoo taxaw bu yàggee da ngay daanu kër gu fees del nga xam ne dépasse ba doo nga la cee dem par weer kenn xamul ni mu toll duutu la may benn temps boo xam ne si man ngay jéem a xalaat leneen boo ca boolee nag ñàkk xel ba doo ci jéem a programme leneen nga xam ne lu ñëw da ngay sëgg mu jàll di ko xaare weneen weer sëb tukki da nga ci yàgg da nga ci màggat da nga ci ami sët da nga ci wéradi da nga ci faatu te dara du taxaw loolu ñi ma koy wax xam na kon kër boo ko yoree ba tabax ko ku ci dugg kenn ku nekk na nga ko wut lu muy def loo ndax tubaab yi nga xam ne fi lañu ñuy kat bu ngeen xoolee seen entreprise yii famille bi koy moom da nga ci gis koo xam ne si day màggat ba retraité waaye teewul am na luñ koy def loo ci biir waaye duñ ko bàyyi mu toog ci loxoy kese lay tax dutu def dara loolu yaakaar naa kenn ñeenu ko yàlla te tubaab yi ñoom ñoo moom moom àddina te noonu bu ñu nekkee ci àddina dañoo war a roy ci ñoom roy ci ñoom liggéey roy ci ñoom roy ci ñoom investir roy ci ñoom sakkanal roy ci ñoom nangoo teel a jóg ak guddee wàcc ak bañ a yàq waaye tubaab lu mu màggat màggat màggat moo xam bu góor boobu la bu jigéen ba teñ bokk ci société yi nga xam ne ca la ñuy liggéey muy entreprise yi da nga gis ne ñi ngi liggéey ñëpp danga gis màggat tubaab goo xam ne ba fabrique bii door xam naa ne bu fekkente ne famille ya ko jiitu ñoo ko fondé moom ba mu ca duggee ak boobu nga ci nekkee ma nga cee nekk moo xam mu ñëw ci nekk ci biir di wëreelu di dox wala mu yor bale di bale wala muy jekkal dara wala muy def leneen waaye du toog nun nag da ngay wax nit ñi ne leen toog leen yéen ñëpp bu kenn jéem dara may liggéey di leen jox loolu moom kenn mënu koo ñaanal nit ba tax ab tukki mu réussir tukki bi ñu tar tardé ñëpp nga xam ne daanaka bëti may kese la tukki bi jur bëti may kese surtout nun Tuubaa gii nu nekk nga xam ne moo ëpp ay immigré boo fi ñëwee quartier boo mënul bëtiku tukki bi ay bâtiment dong la jur waaye jurul ay entreprise jurul ay liggéey barabu liggéeyukaay jurul muy ay industriel yu ñuy liggéeyee moo xam ci secteur commerce la moo xam ci secteur yi nga xamante ne si dañ cay produire dara wala créer ci dara di ko produire génn dem di ko jaayam loolu amu ci tukki bi lépp boo ko xoolee ay tabax la koñ bu la neex wural bu la neexee nga tiim dëkk bi wala nga tiim yeneen dëkk ne bari nañ ay lu mel ne côté njàmbur dëkk boo ci dem la bii ay immigré ko moom ay tabax dong nga fay gis waaye boo wëree doo fa gis ay usine boo fa wëree doo fa ay magasin yu wér manga bu dee wàllu commerce bi moom daanaka li leen gën a tardeel te ñu defee ne ab avancement la loolu ci la ñuy gën a def ci leen xaalis mooy kër gu ngeen gis ñu tabax ko wër leen dëkk bi ba mu daj kër gu ngeen gis ñu tabax ko a fay nekk sóoraale nañ fa garage boo xam ne si da ngay jënd oto bi boo ñëwee wakaaf bi ngay di dawal dégg nga di ci fare di ci daw service yi nit ñi li nga amoon ci achat de poste nga def ko ci te ci la bi nekk kon nañ ca garas boobu kon loolu mënta tax nga investir mukk sóoraale nañ ci it bitig bitigu koñ nga xam ne tey jii kër gu mën a doon donte borom service bu ko wala soxla bu ko sax ñaar yi moom bu ngeen demee ci kanamu kër gi da ngeen ko fi fekk da ngeen fi fekk garas bu ñuy gaare oto nga xam ne moom bu dawee bu tabaxee kër gi ba mu noppi ba ba duy ko kër gi ba mu fees dell ci nit yu mu xam si moo yor seeni fare ci wàllu santé ba ak wàllu alimentaire ba ak wàllu lépp ya ca des ay jabar lañ koy takk jënd oto ñëw def quatre-vingt-dix jours di taal di daw ak la ko jëndee xaalis ba mu lay coûter ak paan ya ak perte sa temps ca weer ya nga xam ne doo ko liggéey ba pare la nga doon liggéey nga jël ko di ko ko wëggee mu di ko naan nga di ko ko dépendre bu paane loolu ku ko ci def dangay ngay sonal sa bopp waaye doole ñi nga ama ko su néew moo la may loolu waaye bés boo tëlee ku soob yàlla dootoo dem kon loolu coronavirus bii ñu génn xam nañ ko ñi fi daan def ñetti weer di dem ñooña dawuñu ko yëg waaye bi ñu leen fi pinee lu tollu ci 6 mois dem nañ ba oto booba dañ ko mujj jaay wala yenn yi ñu gaare ko jabar yi ñu takkoon dañoo mujj di tas te kon coronavirus bi mel na ne kon yàlla dafa ñu ci wan suñu bopp ngir ñu mën a réparer suñ erreur yi weesu waaye am na ci ñoo xam ne sii day ba yëf yi jàllee rëcci woon nañ ko lool waaye delluyaat nañ ci seen manin kon mel na ne tukki bi moom jabar yee ko yëg ci wàllu investir ci wetu jabar moom kooku moom tukki bi dox na ci wàllu investir ci wetu wetu wàllu jabar tukki bi dox na ci wàllu investir ci weer oto particulier di ko dawal tukki bi dox na ci waaye bitugum koñit tukki bi dox na ci te yooyu bu ngeen ko calculer au fond amul lenn loo xam ne sii mën nga koo accompagner tukki bi ba pare bëgg ñëw bëgg ci investir kon kër koo gis da nga fa fekk garage da fa fekk bitig te bitigu boobu boo ko duyoon ba du dutoo gis peinture bi mënoo ci dund ndax jigéen ñi ciy jëw di jënd du desu marché dong lañ ciy jënd desu marché ay ñaar dërëm ay ñett dërëm ñeent dërëm dañ koy leb te am na nañ dañ lay leb dutuñu fa jaar surtout bu ñu xamee ne moodu nga kenn du la considéré dañuy wax ne am moodu la rek su ko defee yërmaande ji nga jëlee bitim réew yooyu day dox moo xam moo tax bu ci investir ñaare bala ngaa dox ñaari mètre danga gis ku la dóor dóor yu metti lekk sa xaalis turiyaane la ndax doo xam ci bagage yi dara da ngaa jékki rek nekk gumba ñëw tàbbi ci seen biir bëgg a dox foo gi sa tànk danga nga fa kastalu daanu li nu gën a daaneel moom xew yu bari moo xam xew yi nga yi xew lu mel ne ngénte yeeg ceet yi ak programme yi am ci réew mi nga xam ne ñun daanaka li ñuy feete moo ëpp li ñuy toog ci suuri ordinaire yi màggal yaa fii moom gàmmo yaa ngi fii korite yaa ngi fii tabaski yaa ngi fii ak yeneen yu dul yooyu xam ne nit ñi ñoo koy fabriqué seen bopp xam ne bokkul ci suur yooyu nga xamante ne si fixe la te leen lu ci ne nga bëgg cee participer bëgg ko ak ci tukki bi loolu mënta nekk kon nañ waxante dëgg waaye tukki bi moom ay tabax dong la jur ak i jabar ak oto yi ñuy daw di ko war di ko dégg ci réew mi amul kenn ku ko mën a dindi nag moo xam muudu bu mën a doon kon ñi ci réussir matul cinq pour cent te 5 pour cent yi boo ko tasaaree ci Sénégal dëkk yépp a ciy bokk 5 pour cent yi boo demoon tey jii fu mel ne bawal gi ñu nekk nga gis muudu yi bañ sosoo ba tey nga rassemble leen ñoom ñépp xool bañ dalee tukki ba tukki xewee ba fii ñu toll nga xool ci évaluer def ci recenser xool ba xam ñenn ñoo ci évaluer bu dee région Bawol daanaka boo ci jëlee 2 pour cent 3 pour cent mu jeex kon 5 pour cent yi mel na ci réew mépp la benn méthode bi la benn rythme bi la te billet avion bi képp dafa cher service bi nga koy accompagner dafa cher boo dikkee temps bi ngay tëdd liggéeyoo ko dafa cher boo dikkee oto yi ngay war di dawal dafa cher jabar yi ngay takk di moobale seen néeg dafa cher yooyu yëpp nag mën taxat ci tukki ak bëgg a investir te kenn ku ci nekk ci ñooñu nag sa bopp la bàyyi ci tukki bi bu dee jabar ji tukki bi moom xoolu ci lu dul alal xoolu ci plaisir xoolu ci bànneex doom sax bu am na ci ñuñ bëgguñu ko ci am na ci jigéen ñooñ bëgguñu ci doom billaahi da nga sëy ak ñoom 24 sur 24 24 sur 24 te du ngeen mas a am sax ëmb bu yàqu ndax dañ koy programme seen bopp ndax leen tardeel te non seulement ñu tardé ñu ñu ñu ñu war la ci wet googu wala ñu trahir la ci wet googu waaye duñ la amal sax njariñ nga bëgg ci yor ñaar bu ñett wutal leen janq bu leen di liggéeyal lañ waroon a def ci kër gi duutuñu ko def te yow yaa ne ci àll bi daal daal te ñoom ñu ne ci kër gi nanguñoo togg nanguñoo yàq nanguñoo sonn te waxtu jot ñi lay indil ay xuloo ñii di jabar yoo xam ne si jabar yi hôpital la waxtu jot yaa ngi génn di faje ñii ñi ngi indi ay problème lii ban bopp immigré la xaj ba mën a dikk di investir ci biir réew te duñ la gërëm duñ la yërëm te yat wu ñu jël buñ ko dóoree fi benn ba mu dagg duñ dàkkaat feneen ca fat góom ba nekk fa lañ koy dóor ba nga daanu ne ñay faatu mënatoo buuse benn meetar ñu dëggaate la jàll wala ñu jàpp la wat sànni nañuy watee mbaam mu dee yóbbu ci biir eh, xurwa sànni tat yi ñëw fekk la fa dëggaate la kon tukki boobu ngeen xam ne li nu gàllankoor mooy lii waaye bu di woon lii te ñu waajal ko ci anam nëgë ni fekk na réew mi dox na bu jag lépp lu am bitim réew te ñoom seenu doorte ñu tukki woon wut ko ñëw heurté ko seenu réew bu ñu amoon vision ci tukki bi jël yii yépp sànn ci àll ba na gën a fekk na réew mi kenn xalaatatu a génn non seulement sax dutuñu génn waaye ñañ daan fekk ñooy ñëw fekk suñu fii wala seeni doom ñëw fekk suñu fii di jàng waaye gis nañ ne ñoom ñañuy fekki ñun ñi leen di fekk dañuy dolli ko ci ñoom te gisaguñ kenn ku leen tàgg woon leen gannaaw koo xam ne que ni da ngaa jekk di ñëw ku jekk di mooy ñëw ak koo xam ne que ni dem na ba mënatu fa tus mu wàññi ko ñëw ak kiy baagante ci diggante bi di dagg bi cher ay huit cent euro mille euro di dagg ko boo dikkee tëdd sa quelques jours delluwaat boo demaatee yoon wi ay faral la boo àggee ay faral la nga war a commencé waat loolu doole ji puisque set day wàññi ko te doole ji bu wàññi ko bu yàggee ci dex sit la jëm kon li nu gën a lor lii la te ku dajeek yow ci yow rek yor paakaam bëgg a dagg mbedd mi boo ñëwee di tukki si ñibbisi ku dajeek yow bëgg a lekk koo dajal kay da nga ko war a jox waru leen a ay waxtaan rek dem loolu sax tàmm nañ ko ba koo gis lam lay jëkk wax sama sëriñ danaa ko jël si lan moo tax ma ne la sama sëriñ bu la xamee bu la xamul lépp xam na ne tukki kenn nga sëriñ rek la soxla ci yow Sénégal gépp nag ku mu mën a doon mën naa yor lu la ëpp ëppalee fuuf waaye bu la gisee denc lam yoroon fexee bokk ak yow la nga yor mu paree mel ne mbuusug rëdikoo jënd wala mbuusug ndox boo ndox ma ko def boo ko ne cas ba bënn ko naan ko boo jeexee daal di sànni xattoom xott wa naaw daal di dem ca mbalit ma nga daal di dajjiwet beneen koo gis loolu lay jëkk laaj sama sëriñ bu dee ku la xam sama sëriñ bu dee ku la miin sama sëriñ bu dee sab xarit sama sëriñ yooyu yëpp nag day bokk ci gàllankoor gi nga xamante ne sii dafay am ci tukki bi te nit yi duñ ko bàyyi di xel ñeneen yi ci des buñ la ne surtout la ñuy njëkk a wax amuñ ci yow wé xalaat ci yow lenn lu baax lu lay lu lay lu lay intéressé ña ngay mel ne daal njommoor goo xam ne si dañ cee wékk lañ bëgg kenn ku ne bu ñëwee wékk yóbbu yow njommoor lañ lay jàpp bu dee xale yu góor yi ku ñëw mi ngi tàmbalee xool sa montre mi ngi tàmbalee xool sa portable mi ngi tàmbalee xool say dàll mi ngi tàmbalee xool sa jiin mi ngi tàmbalee xool seen tët gi ngay takk mi ngi tàmbalee xool mi ngi tàmbalee xool te lenn lu ci ne dana ci teg bëtam te dana jaar ci sa ci turwa tudd ko ne la lii dama bëgg nga jox ma ko su yàggee te nga teg ko jox ma ne booy dem bàyyil ma ko fi te du la may jàmm tànk bayoo ko fi soo ko ko bàyyilul mu jàppale ab fenkat am na ci ñuy sax laaj ci joxoo leen danañ ci dënkook yow boobu boo leen rombatee duñ la tudd te dem sob der du baax lii lépp dafa bokk ci gàllankoor tukki te nit ñi xamuñu ci dara yàggaay bi lépp looloo ko waral du leneen moo tax tubaab yi jëpp ñu na am nañ ne ñun kat danoo ñëw dëkk si waaye fa suñu te jàppewuñu ñu am xel tamit dëkkit nag ndax magum jëmu bu ñëwee ci am réew di gone dem ba màggate fa ba am ay doom ba am ay set ba di indi ci te fañ nekkoon jógañu fa système bañ doon liggéey jógañu fa fare yi doon fare jógañu ca te benn vision dong lañ am tabax jabar tabax jabar loolu moom daanaka mën naa ne jëru tukki te ñun ñëpp ci fiir googu la ñu nekk am na ci ñoo xam ne si tey quatre-vingt-deux ba fi ne ñu ngi ci tukki bi lii may wax boo demee France gii da ko fa fekk xam naa bu ñu ko déggatee nag seen xol yi tàng waaye li may wax moo am te ku koy dégg mu lay naqare ci biir France nga koy déggee ku koy mu lay naqare it ci biir Italie nga koy déggee ku koy dégg mu lay naqare ci biir Espagne nga koy déggee doo toog fii mukk dégg lii may wax te nga jóg ca loola mu naqari la moom kay da ngay ne ci biir tukki bi mu wóor na bu ma tuddee quatre yaa ngi ci biir nga commencé dox doxum ñaxtu bu la naqaree yeddal sa bopp mere sa bopp waaye bul mere kii wax mukk ndax kii wax moom lii dëgg gi képp lay jël di ko exploité kon na ngeen xam ne tukki bind ko gàllankoor bari na koo jox ren déwén joxoo ko mu mer koo jox ren la nga ko joxoon nga joxaat ko ko mu mer dégg nga ku la woo wuyu la téléphone nga mer tam dañ lay topp ba boo delloo bitim réew kenn ku ne loo fi digge woon te mu mu da ci bari ñoo xam ne dañoo mën a digge de suñu amul luñ joxe su ma delloo su ma delloo su ma delloo jooju yàq na diggante yu bari boo delloo te sa téléphone kenn dutu la jot wala bu la jotee ngay laye la nga waxoon dutu ko def ñu traité la ab fenkat te muy dëkk kon nit ki lu muy wax nay doon lu man tey doon lu muy def tey doon lu muy nar waaye luñ la wax te naroo ko mënoo ko taxawal ne leen loolu mënuma ko waaye bu ma delloo yor sa làmmiñ war a tax rek surtout booy door a ñibbi si weer yi njëkk yi nga xam ne dese nga fi ay weer xamutoo lu la të bu asamaan say wàcc nga def ne mën nga koo téye boo demee ba weer wi nga war a dellu ku waxateeg yow dootu ko dégg ku la wax nga mer dégg nga duutu di tongoo duutoo xam ne nit ñi wax loolu wax li nga xam def li nga man da lay tax a noppalu ndax ku wax loo xam kat bu ëllëgee kenn dana la yaa fi waxoon lii ku def loo man bu ëllëgee la nga mënoon boo ko mënut doo daanu doolat kon nañ xam ne kat gàllankoor gi ñu gàllankoor na ngeen dégluwaat waxtaan wi bu baax ay tabaxa ñu rey te móodu yépp a ci am réew mi ba mu daj foofu mën a dem secteur bu móodu amul am bu nekk boo xoolee lañ fa def weesuwul ay tabax tabax ya boo ko xoolee weesuwul garage ak bitig waaye ay usine ak créer ay société ak dugg ci wàllu secteur yi nga xam ne administration bi nga xam ne ci réew mi nga administre mi nga nekk dañ lay reconnaître ngir sa xam-xam ak sa vision amu ci genn wall gépp ci loolu la ñuy dund ñu njëkk ñaak année soixante yi ak année quatre vingt ak année deux mille yëpp ci lool lañ nekk te muy doon lu wér ñi baree bare bu ñibbisee toog xamal ne amuñu amuñu amuñu pexe ndax doole ja mayatu leen ko wala wér ga mayatu leen ko wala wàllu régularisation ba mayatu leen ko muy amuñu suñ ay papier lii nag bu fekkante ne muy tukki bi moom na ngeen xam ne du jeex ku leen dañ dana jeex waxul dëgg ndax ñëw tëdd trois mois di jomb jaay jomb jaay mu mu rafet mu ne nga sol gaaraam place bu ne nga toog xew bu nekk nga dem loo ñu la laaj lu ne nga bëgg a jéem a ñot ñoti di ko joxe booy ñëw sa walis bi lépp feese ki sëri ca loo diggee woon lu nekk nga bëgg ko ñett ñetti boobu biir see képp ku ko génnee ci sa tukki na la wóor ne doo desal loo fi toogee ci réew mi la ja des nag boo dikkee nag fas yéene ko yemale ci takkum jabar ak def ay carburant ay essence ak dagg ay ak toog bi ngay toog diir bu yàgg di daw ak ñëw loolu kenn mënu cee réussir ñun ñëpp ci yem koo ci gis ci ñi gën a yàgg ñii def nañ fi fanweeri at ñii def nañ fi ñaar fukki at ñaar fukki at ak fanweeri at nag ku koy def ci tukki te la wóor ne boo nee damay toogit xam nga ne li ngay wax gëmu ko taab nañu dañuy ñëw ba tàbbale ko toog ba nga ne ndax yàlla ñu koy xëy dem te réew mi ak nooy neex lañ leen def xam naa émission boobu bu ñu demaatee ci ëllëg wàllu ni ñuy jàppe moo di def leen comme xarum tabaski di leen fees ci wàllu investir ci réew mi nga ñëw ñuul eh, nax la ci ay pakk nax la ci ay oto triyaane la ci xaalis lenn loolu ñu ne la gis naa fi loo xam ne si boo ci dugalee sa loxo dana baax boo jëndoon ab taxi tey mën na la indil nangam te ki koy wax moom bëgg num ci jote ba mën a lijjanti boppam soo ko ko joxee mu triyaane du la verse lekk sab xaalis ba pare ëpp la coow te mën na la cee tëj lu ci kaso bi sax ndax da lay gën a ñëw làmmiñ nga ne ah loolu naa ko bàyyi bàyyi nga ay loolu boo ci jógee demati beneen secteur nit def la defaat lu mel noonu loolu gis nañu ñu bare bare ci lañ yàqule benn muudu boo xam ne sii man ngaa waat ci sëñ Tuubaa ba nga juddoo ba fi mu ne di dala tukki kenn dóoru la ci réew mi amul ñépp a ci yam ku fi tukki ku nekk ngàdd nañ la nga daan lekk nañ sa xaalis ci wàllu commerce lekk nañ sa xaalis ci wàllu taxi lekk nañ sa xaalis ci wàllu triane lekk nañ sa xaalis lekk nañ sa xaalis lekk nañ sa xaalis amul benn muudu bu ci mucc kenn kon ñu ngi taxaw foofu di nuyu comme ni leen ko waxee woon di ko tëjee émission bi waa Afrique de l'AOF nuyu waa Sénégal waa Mali waa Burkina Faso ak waa Guinée Bissau ak Guinée équatoriale ak Guinée euh, euh, nu mu tuddati Guinée Bissau ak Guinée équatoriale ak Guinée Conakry ak Guinée euh, Niger ak Nigeria ak Niger ak Tchad ak Soudan ak Sud Afrique ak Éthiopie ak waa Kenya. ak waa Gabon ak waa Côte d'Ivoire ak waa Angola waa sambi ak waa Tanzanie ak waa nu mu tuddati sax dëkk bi waa Botswana ak waa Madagascar ak waa Mozambique ak waa Cameroun waa Togo waa Benin ak waa Seyir kon mbokk yi ñu ngi leen di jox di daje numéro 100 incha allah buñ ci àggee nag lañuy ñuy waxtaanee mooy. dóor yi nga xam ne dóor nañ ko móodi yi ba fi mu nii yat bi ñu leen koy dóoree yenn yat wi la te mel na ne kenn nan na ko ko ba mën koo moytu jërë ngeen jëf